revue de la presse sur M7 TV baax bi jot na fii ci M7 TV dañ leen jukki li gën a fës ci yéenekaay suite Quotidien laa koy doore mi ñëwaat ak ñun ci séddale bi nga xamante ni daanaka tolloo na ci siège wu bureau assemblée nationale yi ci diggante pouvoir ak l'opposition li ñu xam ne ci 14e législature bi mooy nekk na ab défi boo xamante ni pour ñëpp ànd du yomb ba tax na Abdou Sané ancien parlementaire nee na maanaam lii lée votu consensus bi dina andi ab blocage bu rëy à une soirée moom itam ci beneen yoon ancien député la ak spécialiste du droit parlementaire nee na amul euh, benn texte bi nga xamante ni mi ngi expliquer décision bi nga xamante ni maanaam dogal bi nga xamante tey jii bureau bi bëgg jël ngir vote boo xamante ni daanaka ñépp ñoo ci daal di ànd muy lu jafe-jafe-jafe yi ci seenu diggante l'évidence feelu ko ñëwaat ak ñun ci tànnif bi nga xamante ni njiitu réew mi mu ngi koy tànn jëmale ci jigéen ñi nga xamante ni jàpp na ni daal euh, comme ni ko journal bi waxee Macky Sall cherche une bonne femme ci diggante Mariama Sarr Anta Sarr Mariam Badiane Ndey Sali Diop Dieng Zahra Iyane Thiam ak ci tama Fatou Diané le quotidien waxaat ak ñun maanaam ci yoon wi nga xamante ni tey gouvernement bi jël na ko ana tey jii xeex bi lan la leen war a jaral mu ngi mel ni tey jii eh, feuille de route bi buñ ci xoolee yoon bi nga ni Macky Sall bëgg na faa jaara moom ak ki nga ni la jiital di Amadou Ba muy eh, tey jii naka jere inodasi naka gérer inondation yi plan yi nga xamante ni Macky Sall teg na Abdou Karim Fofana itam ah, ci njëg yi nga xamante ni tey danaka jëm na ci kanam Aladji Dieng moom it di président UNACOIS Yeesal nee na du yomb ci ñoom ñaar ñii ak uh, ki nga xamante ni mooy uh, ministre du commerce itam daanaka dara du yomb ci ñoom l'observateur ba tey des ak ñun ci coow li nga xamante ni moo Nek ci diggante gouvernement bi daanaka amadou ba mi nga xamante ni moom la jital jiital ak euh, li nga xamante ni mooy lu tembare li xamante ni moom mo koy xaar di diggante crise bi ñu nekk ak pression bu metti bi nga xamante ni ji askan wi ñoo ngi koy teg nguur gi te itam ñu ngi dund lu metti lu ci gi yaram njàng ak njàngale yoon ak napp gi ak mbay mi daanaka facteur yépp yu fi ba ci yaram dafa sooxe ba nit ñi ñi ngi ci ay xat-xat ak jafe-jafe yu mete mete métti lu ñu xamle mooy euh, ginnaaw nomination bi ba tey ci L'Obs dina am juróom-ñeenti député yoo xamante ni euh, dañuy jóge ci yu benn Bokk Yaakaar dañuy jóge définitivement fële ci assemblée nationale. Abdoulaye Daouda Diallo itam Mon, mi ngi def na ab demande de suspension mandat sans conséquence tribune des ci politique di wax ni Patrice Talon Mon, mi ngi wane euh, voie bi manam mi ngi wane yoon wi nga xamanteni la suñu njitu rew wara mëna jël ci troisième mandat ndaxte l'exemple bi mu wane moy euh, président béninois bi dal euh, néna na fësal wu la def li di troisième mandat li tribune xamle moy Macky Sall la ci wala lata lata ñuy xaar wala lata muy andi ay jafé jafé ci réew mii ba tey ci tribune nee na ndax Barth day dellu prison loolu at loolu daal ab laaj bu tribune samp la alerte quotidien mi ngi alerté ba tey ci hémicycle bi maanaam ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci péncum ndaw réew mi ni député yi nee na daanaka tey jii bu ñu xoolee euh, ñi fare ci pouvoir bi ñi ngi ci menace bu metti bi nga xamante ni day jóge ci ñi fare ci l'opposition bi maanaam la menace de l'ouragan yi source a ñëwaat ak ñun ci jamono bi nga xamante ni euh, Sitor Ndour doon euh, sàkku ab moo ki avocat ab liberté provisoire euh, muy loo xamante ni tey jii juge ba da koo daal di bañal ndaxte li mu évoqué ci yoon yooyu bëri na nee na bu ñu ko may ab liberté provisoire mën naa jéem a nekkaat di déggante ak famille ñi nga xamante ni tey jii mooy xale bu jigéen bi ñu sàkku itam tey itam nekk na benn mbir boo xamante ni lu doy waar la tey. atteinte la ci ci honneuru xale bu jigéen bi ba tax na amul benn raison bi nga xamante ni war naa tax ñu daal di koy euh, may ab euh, liberté provisoire L'As Quotidien moom euh, di wax ci jële bi ñu fi jëlee Matar Ba di xamle ni tey ji nekk na lu métti métti loo xamante ni sénégalais yi daanaka mënaguñu ko digérer moo tax mu def ses griefs qui ont emporté Matar Ba direct news di waxaat ba tey ci dàkk bi nga xamante ni ah, dàkk nañu ko Matar Ba nee daal daanaka émission bu metti la jur te itam am na bu ñu xoolee ñu nekk ci tàggat yaram ñu bari yenn ci sax ay mbër ñi nga xamante ni ñu ngi nakkarlu euh, dogal bi nga xamante ni njiitu réew mi euh, dogal na ko ba tey ci beneen wàll Massaly moom it mi ngi déclenché guerre maanaam euh, mi ngi wax ni troisième mandat Macky Sall bi bu ko bëggee ñi fi nekk naan France frappe dégage ak ñenn ñi nga xamante ni tey jii. ñi ngi def tegal ab slogan bu bees naan ah, gor ca wax ja ku ci mel ni euh, Guy Marius masal yi démb yàq na leen lu mel ni xamee te itam nee na bu njiitu réew mi bëggee ab troisième mandat kenn munta tee ba duñu ko jàppale mu dem ci ndax mu am euh, li nga xamante ni moom la bëgg. ci libération laay dikk ak yéen wax ak yéen ci mafia bi nga xamante ni moom la ñuy dégg maanaam njuuj njaaj yi am ci consulat wu France wu Dakar bi li ñu xamle mooy tey jii. Euh, Théodore Seye bi am na ay enquêteurs yi nga xamante ni jamono yi ñu nga fa teg fa ay agence ngir enquête ana lan moo waral bi njuuñ njaaj ak euh, lu gën a leer libération daal euh, moom la fësal ci xëtam bu njëkk wax na itam raison yi nga xamante tey ji moo waral Sitor Ndour may ñu ko liberté provisoire Walf Quotidien laay ñëwaat ak yéen moom mi wax ci maanaam force ak faiblesse maanaam tey jii li nga xamante ni moo mën a jëmale kanam Amadou Ba ak li tam yi nga xamante ni maanaam faiblesse am la li nga xamante ni tey jii mënula jàkkaarlook moom benn yoon fësal na ko ci xëtam bu njëkk muy. amadou ba amna am na ay euh, limite jëmale ci li nga xamante ni lu bees li moom lañ ko tabb di njiital gouvernement ba tey ci walf quotidien na ci forfait euh, noa fadiga bi nga xamante ni dina manqué appelu alune ci xëtam bu njëkk record ba tey laa des ak yéen di waxaat ak yéen ci euh, Noah yi nga xamante ni euh, ab équipe am euh, maanaam xamle nañu du mën a teew ci sélection wu Aliou Cissé bi ginnaaw ab blessure bu mu am te itam Moussa Diakhaté Boulaye Dia ak Ismaïla Sarr ñoom it dañ leen a ménager ba tey jii ba tax na amaana daal daanañu fekk si li nga xamante ni mooy euh, match bi am ci diggante Bolivie ak Sénégal réew mi sport moom euh, fësal na ci xëtam bu njëkk maanaam tey jii séance bu entraînement bi dox ci diggante Lions yi ndax match bi ñuy waaj a def match amicalu Sénégal ak euh, Bolivie ci stade laa ñëw génn ba tey ci tàggat yaram li ñu xamle mooy dina am ñaar fukki gaynde ak ñaar yi nga xamante ne dinañ wuy si wooteeb Aliou Cissé bi waaye li nga xam ne mooy Mendy ak Noah Fadiga moom naruñoo teewee euh, bi lépp match loolu la Aliou Cissé xamle te itam euh, stade ba tey def na ab taxaw seetlu maanaam témoignage bu nga xamante ni jamono yi Euh, mi ngi ci diggante euh, Europa League bi muy euh, Salah maane Mahrez ak nga ñoom it ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xamante ni jamono yi daanaka match yi ñuy joué gëj nañoo dugali bal ba bayitam def na ab taxaw seetlu ci seenu yeexaay fan yi ana lan moo ko waral. sunu làmb laa koy jeexale mi wax ak ñun ci kàddu yi Aly Ndiaye yi moom ab ex préparateur la Balla ak Gris Bordeaux li mu xam ne mooy. Macky Sall am na raison bu baax ak euh, raison bi tax mu waral euh, mu wàcc kii di Matar Ba nee na itam bu ñu bu ñu contesté wala ñuy jéem a euh, wër ana moo tax mu wàcc ko ndaxte Matar Ba doonte def na fi liggéey bu rafet waane itam ku ci sa mission jeex nga dem loolu la Aline Ndiaye xamle jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen yéenekaay sur la m TV jàngeen jëf